Aïssatou Sall Ba. waaw. sa borom kër la woon kañ la ko may ak kañ la dem fa la mooy Thaïlande. le 8 mars bay passé la dem Thaïlande un presque la fa am le 27 mars bii nii lañ ñu maye waaw mu décédé la. le 27 février la ñu may mu décédé le 27 mars. muy bi leen may ba du leen bët. waaw. samedi. samedi bu waaw samedi laa gëj a dégg. ñu de dañ ñëwoo man. fekk euh, samedi dañuy waxtaan man ak moom ba ay presque 14 heures fekk boobu 19 heures moo jot foofu après mu ne ma damay dem entrainement léegi euh, su ma fa jógee dinaa la woo ma ne ko waa fekk moom xaas bu ma waroon a envoyé mu ne ma dimanche wala lundi ma ne ko waa léegi ci dimanche bi ma xëy euh, xool ko ci ligne bi ba sonn gisuma ko après ma ne xëy na feetu pag yaa fi ni mu ni mu kii xam naa looloo tax lenn aussi itam ma xool ko ci ligne bi ma sonn gisuma ko après mardi bi ci laa xëy daal di dem daal di jënd crédit bi ma jëndee crédit ma woo ko di dugg boîte vocale ci laay waxtaanee benn xaritam xarit bi ne ma man de foofu noonu sax laa jëm mais après bu ma eggee dinaa la woo ma ne ko waa fekk boobu am na ñu ne gis nañ ko ci suba. Euh, def nañ ko ci Facebook bi ndax dañoo amoon benn contact am pour woote fii pour wax leen ko ndax après bi mu décédé bi ñu leen andilee téléphone bi puissam dañ koo rocc loolu taxoon amuñu benn contact après nag si la ko si la ko nit ñi daal di yëgee waaw ah, ñu ne xawma policier yi dafa demoon réer ji bi muy wàññeeku nag ci la leen policier daal di arrêté di leen laaj kayit feek moom ay kayitam dafa jeex ci la dawee nag nee na ñu koy dàq mu jaar ci yoonu ndox bi après ñu teg ne sax dañ koo jàpp léegi ci lañ xool prison yi nekk foofu yëpp gisuñu ko après ci lañ demee police daal di koy déclaré léegi policier yi euh, ñi nga xam ne ñoo ko doon dàkki ñu dem daal di koy génnee daal di koy génnee ci ndox mi léegi nag sénégale yi nekk foofu ne nañ loolu moom logigul ndax bu fekkoon ne ñoom defuñu ko dara kon mënuñoo xam fu mu fu mu dugg waaw te aussi itam téléphone am bi dañ koo rocc daal leen andi téléphone kese waaw. kon daal ci euh, ah nit ñi de lool loolu lañ ñaaw njoot ne policiers yi ñàkkul ne luñ ko def ndax ñooñu loolu lañ wax ne loxo policier daal jógu ci. ndax ñoom la daal. fu la koor bi nekk. Thaïlande la nekk. Ah, nañ de ñu ngi jéem a def ay kii ay lijjanti pour ñu mën a teel a jot ci koor bi. loolu hmm, tey lan ngeen di wax maanaam nguur gi état pour ñu jàppale leen ngeen mën jot ci koor bi. Ah, képp koo xamante ne. am nga ci loo xamante ne mën ngeen cee dimbale ci nu mu gën a gaawee pour ñu jot ci rek ñu ngi leen di xaar pour ñu teel cee jot ndax ay mboqam yëpp fii lañ nekk famille yëpp fii lañ nekk moo tax. moom da doon da doon football fii di dawal Jakarta waaw. Silma. waaw ak ay daan na football tam yeneen équipe mais Silma. la euh, nouvelle bi. tey non du tey. Euh, c'était le mardi matin talaata ci suba donc la ñu yëg euh, affaire bi ñoo ngi ko gisee ci Facebook bi message bi moo ñëw benn message moo ñëw un certain Nabi moo ko. ko ci Facebook bi parce que nee na amul woon benn coordonnée wu Moodu moo tax mu def ko ci Facebook xam nga ni xale yi moom li ñuy jëkk def bu ñu yeewoo mooy ñu connecté moo tax dala du leen du leen rëcc benn nouvelle du leen rëcc waaw noonu nag la xale yi ñu ci bëri yëge nouvelle bi ñenn ñi ci ñoom ñëw contact yéen ma fii le matin boobu maa ngi soog a julli yéen ma fii ma le matin dañoo jot jot gis benn message ca Facebook bi daal wax dëggam yàlla lu doy waar la man leen anama ma ñëw woon ma ko ma gis ko noonu laa yëgee nouvelle bi ñu bëri aussi yëgee bi après ñu la xew ak naka la xewee waaw nee nañu euh, bi mu Facebook bi nag message biñ ci def ñu ci nan la xewee ak nan la amee dafa ni rek euh, am na benn xale ca Thaïlande dee na fa Pape Modou Dieng lañ koy wooye loolu rek la ci la ci la ci def waaw. moom footballeur la tànnoon fii dafa footballeur est-ce que amoon na club ak yooyu waaw club nag amoon na ko loolu la ñu wax loolu laa dégg mhm. man wóor ma nag loolu laa dégg ni amoon na club mhm. doon na fa football. te nekkoon na fa meilleur joueur meilleur joueur meilleur buteur. bu ñu feete woon waaw bu ñu feete woon ko sax foofu waaw li nekk ci diggante bi nag man vraiment nag xaw tax nag mu tey ne vraiment xaw xaw ma ko. sàkk nga ci autorité yi ngir ñu def benn autopsie. waaw sàkk nañu ci autorité yi à travers surtout le représentant de l' ambassade bu euh, bu bu kii bu Malaisie bu mhm. Fallou Diouf la tudd nee na woo na ma fi euh, démb ci suba euh, ni ñu ndax bëgg ngeen corps bi ñëw ñu ne ko waaw ndax bëgg ngeen ñu autopsie ko ñu def ko autopsie ñu ne ko waaw waaw nee nañ ko aussi euh, kii bi état bi rek lañ ci yaakaar nag pour mu ñëw waaw ndax amuñu vraiment xaalis boo xam ne bii lañ koy yónnee pour frais de transport mu ñëw fii waaw li ma ko waxee sànq ci euh, français rek xibaar bu ni mel moom wax dëgg yàlla euh, mënuñu ci am lu dul euh, njàkkare parce que ki nga xamante ne tey jii moo génn àdduna ah, ndaw la woon ndaw nag bu demee wuti ji ngir teral ay waajuram ngir teral ay mbokkam ah, lu mel ni fekk ko ci daal wax dëgg yàlla du du du neex kenn du neex kenn voilà moom loolu moom daal noonu lañu ñu accueillir nouvelle bi waaw. xam nga yu mel ni moom d'habitude bu amee lu nekk ngay dégg. lu nekk ngay dégg mais li nga xamante ne daal moom moom la ñu mën a jàpp te mu jóge ci ki nga xamante ne jege ñaaleem la mu nekk ndoog moom foofu donc man bu ma demoon bay retenir loolu laay retenir te sànq yéen tamit déggal ngeen ko seen nopp bi mu wootee fii biñ ko laajee li mu wax mooy euh, dafa génnoon reer yi donc bi mu génnee reer yi bay ñëw donc comme ni muy amee ci ci dëkk yooyu rek des fois ay patrouille am donc ab patrouille am bon ci lañ ko laaj Euh, ay papier bon puisque moom euh, génn woon sans papier donc xam nga rek loo xamul rek donc euh, ci la daw ñoom it après amaatuñ ci nouvelle ba ñu xëyee dem ci commissariat yi yaakaaroon ne xëy na dañ ko ramasse bon par la suite lañ leen informé ni gis nañ ko ci ci ci benn lak daal te xam nga tamit lu ni mel koo xam te dañ ko doon laaj ay kayitam ñu xëy ñu ne la gis nañ ko ci lak mu mu faatu donc wax dëgg yàlla lu mel noonu dafay tey xel daal dafay tey xel ñun daal loolu lañ ci jàpp waaw donc dans un premier temps daal dañuy sàkku autorités yi sénégalaises yi luñ ci mën ñu def ko ci dans un premier temps ñu def autopsie mu yëfi daal leer ci bopp ñëpp leer ci bopp parce que fi mu nekk nii lëndëm na ci xel yi lu nekk ngay dégg comme ni ma ko waxee sànq donc suñu sañoon daal yëfi leer ñëpp am xamandoo lan moo xew exactement ensuite tamit ñu ngi ñaan autorité yi nga xamante ne ñoo fi nekk ñu def lépp lu nu mën euh, ngir koor bi ñaat parce que ki nga xamante ne moo gën tey àdduna doomi Sénégal donc kon nu ñu mën a def ba mu ñëwaat fii ci réew mi daal wax dëgg yàlla euh, ñu ngi koy sàkku di ko tàmbalee ci président de la république premier ministre ak képp koo xamante ne autorité la fii Sénégal rawatina ki nga xamante ne tamit moom la ñu dénk sénégalais yi nga xamante ne ñoo nekk bitim réew muy Sori Kaba donc moom ñu ngi leen di ñaan daal lu ñu mën ñu def ko ci ngir ki nga xamante ne tey ji mooy doomi Sénégal euh, di citoyen comme ñu nii ñëpp daal di ñëwaat daal dëkkam ñu mën ko fee denc daal wax dëgg yàlla bon xaw ma exactement turu équipe bi nag waaw waaw waaw doon na am ko équipe comme ni ngeen ko constaté sànq ci photo mi foofu doon na doon na évoluer foofu. waaw waaw waaw doon nu ko def comme euh, ni ko jeunes yëpp di defee bu ñu nekkee bitim réew waaw doon na def waat galam daal